am bu njëkk gannaaw ba mu daal di génnee ndungu siin mu daal di koy dooree ak minute de silence jagleel ko ñu ñàkk seen bakkan ci ay manifestation 2021 ba léegi Cheikh Oumar di àddu itam ci li nga xamante ni moo di libération ñi ñu duppee détenu politique. exemple bu pata mooy man dégg naa ay tappalekat di wax naan gars yi génn kaso dañoo signé ndax amul ay ay dilëk doon itam porox ndoll eh, ci njiitalu rassemblement pour la vérité mu daal di eh, dàq li nga xamante ni eh, moom mooy jëwriñ gi gàlloo wàllum yoon daal di xamle démb bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Oumar Diagne nag li tax ñu daal di dakkal processus électoral bi moo di ngir seetal Amadou Ba. histoire chaque fois day bégee le 25 février 2014 si la ñam yi ak Amadou Ba parce que mu représenté Sénégal yóbbu Sénégal sur l'autel du grand capital. et de l'impérialisme occidental le 25 euh, février boobu 24 25 février ñu waroon ñëwaat def élection ñu xam ni seen candidat wax dëgg yàlla amul chance su gagné. ki nga xamante ne dafa jàppee boppam nii dañ kaa séquestré li mu soxla rek moo di. instant bi yéen ñëpp mu leen laajee. élection Sénégal kañ la jox leen ma date kenn xamu fi date lii c'est digne d'un pays bi nga xam ne Euh, à monarchie constitutionnelle. Cheikh Oumar Diagne andi itam jàppandalam euh, ci euh, Bassirou Diomaye. le rassemblement pour la vérité ànd si ñeneen ñi tegoon loxo anam gi naqari la ko daal di def loole nag moo waral mu daal di xam ne nii dina dugal ay kayit ñaxtu ci li nga xamante ne nag moom moo di institution internationale yi.